Moussa Silla di initiateur école football espoir la yeewu ñu ngi ko créé le 4 4e mois 2016 depuis boobaak léegi nag ñu ngi entraîné année bii moom mooy suñ six sixième année boobaak léegi nag satisfaction rek lañ ci am quoi buñ ma bu ñu waxee satisfaction moom mooy xale yi ñoom ñi ngi bëggal ñun sport rek moom moo ñor ko bëgg a développé. football pour catégorie bi rawatina yi nga xam ne ñoom ñooy jeune ci diggante Mbacké ak Touba gis nañ ne loolu dafay xaw a raflet tuuti de ce fait que bañ amee suñu initiateur lool moom moo ñu poussé à ce que ñu créé école football bi ndax suñ premier diplôme ñu ngi ko am en 2016 bi ñu amee diplôme bi rek bi ñu ñëwee fii lañ créé école bi mu nekk école football espoir de yeew bu ñu waxee école football espoir de yow ñu ngi ko initié ci benn ASC bu nekk suñu koñ ASC boobu ñu ngi ko créé en 2015 ci lañ inspiré tur boobu tuddee ko ASC e boobu mi ngi tudd yeewu ci lañ ko inspiré bii tuddee ko espoir de yeewu waaw bi ñu koy créé na xawoon na jafe tuuti mais boo amee ay copains yoo xam ne dañoo bëgg sport sport donc ñor leen depuis que en tout petit ñuy pratiquer sport kon donc loolu moo tax mbir mi xawoon na jafe mais jafewul woon ndax gars yi dañ koy jàpp ak moyens yi ñu am suñ copains yi ak bon volonté yi ñoom ñoo ci jàpp ko ba tax école football bi mu taxaw nii quoi. waa suñ particularité ak école football yi moom mooy euh, milieu bi ñu nekk nii pratiquement école football sos ko yomb na mais pour nga doxal ko na mu war a doxee moom moo jafe ndax bu fekkee da nga koy da nga koy créer pour am ci xaalis xaalis amu ci plaisir rek moom moo ci am xale yi nga xam ne da leen di bégal on a que tour rek lañ ci am mais am amu ci côté xaalis moom dafa nekk projet boo xam ne projet à lon terme ni ko loo xam ne au court terme la danañ danañ compétir ndax am CONEF day organiser chaque année championnat U13 ak U15 même ñi nga xamante ni bii dépassé nañ âge boobu dañ leen di yóbbu ci ay club yu demee ne yu demee ne fierté wala yu demee ne ay bokk jom wala yu demee ne ay mbooloo mi wala yu demee na ay xewar gi de ce fait ñu ci lool profité nañ ci occasion bu ba affilié nañ au niveau de fédération xam naa bientôt mën naa am di un an wala deux ans danañ am club comme comme ni ko yeneen école football amee wala comme yeneen centre yi ni ko amee. passe le plus proche après nous déplacé dans dans une de 20 minutes après nous changer def une touche de balle c'est bon maintenant occupation rationnelle Il du terrain n'y a pas de limite de l'autre côté fële pour de ça de l'autre côté petite catégorie Mangsi, bon pratiquement ça fait plus de 6 ans que Yungu, quoi mais j'ai fait avec Moussa bientôt 3 ans leen quoi mais suis si pour lu satisfaction là. satisfaction utiliser loolu ah bien joué petit intelligent encore hmm. xale yi moom sincèrement en toute sincérité je le dis ni amna naa si ñoom mais le football a dit vous pouvez être mille personnes deux seuls vont réussir le contexte football on qu'on ne vient même pas mais ni côté bo côté psychologie ba seen dañ inclure ba seen i parents côté seen vie sociale avec leurs parents leur famille et tout dañ si inclure dañ leen si inclure kon donc même Moussa laa di sur ces mots léegi na ko am na ñoo si xamante ne ñoom bon am na fu ñu jaar daal ba seen i parents amuñu defa ñoom mais c'est pas bon de citer des noms mais c'est quelque chose boo xamante ne ñun dañ si dañ si dañ si concentré bu baax côté surtout côté étude parce que le football a changé. Le football a changé de nom primo. Secondo, le football a dit et a laissé. Mouilan, sport, études. C'est la, première des choses. Bon, Djangoul, outil métier en même temps. Moi, je suis bon, fille, Santa yàlla dal bi nga Bien ne côté boobu dañ si historique muy côté étude bi. voilà encore ñëw dem ah joli Eh, só fulerna. Ancora. Eh, utilizza il ballo. Utilizza, ei, utilizza. Bola bola xat. Dañuy fexé tel sorte que bu ñëw entraînement heure bu ñëne wo. Dañ fexé ba am temps bo xamné temps la bo xamné dañ ci liggéey ci walu physique bi té du leen andil jafé jafé, du andil ben problème. Suñ paré mais lepp lu ci lepp lepp lepp ci liggéey sax physique bi ak ballon bi lay lay lay doon. Ak ballon bi lay doon. loolu pare li travail bu loolu jàllee li si ëppaat dafa technicité pour ñu maîtriser ko parce que base boobu lañ lañ lañ lañ nekk ay xale lañ boo leen yoree faaw nga fexe ñu maîtriser li nga xam ne moom mooy ballon maîtriser li nga xam ne moom mooy jeu base boobu la ñuy la ñuy ñëw ak ak ñoom physique bi bon amul amul benn jafe-jafe bu leen bu leen waaw dañuy liggéey telle sorte que ñoom duñu am benn jafe-jafe si physique bi ndax temps bi neexul euh, te xaw na jafe mais dañuy fexe telle sorte que ba mu jaar yoon quoi. ensemble lan lañ ci séntu waxoon naa ko sànq ci sama biir wax nee naa nekkul projet boo xam ne au court terme à long terme la kon bientôt ñi xaar fii ak un an ou deux ans pourquoi pas ñu benn professionnel boo xam ne day nekk de haut niveau loolu moom mooy suñu rêve. eh kaay nii ati ah.